كتبت وكل فاء نفسا فوسركا وقبل سالم نسيب دركا كتبت وكل فاء نفسا فوسركا وقبل سالم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin attahirin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu suñu kilifa gu tedd gi nga xam ne moo ne ci gox bi di sëriñ Aliou Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadinil Fadil nuyu bi ñu koy nuyu ñu jël ko teg ko ci loxob sëriñ Modou Mbakke ibnu Cheikh Aliou Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadinil Fadil ñuy nuyu mbokkam mu baax mi mu dendeel di sëriñ Takko mu sëriñ xaban ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil di nuyu mbooleem rakki sëriñ Modou yi fi teew yépp mu mel ni mbokk yi bu ñu mënoon a may tuuti rek wax daa metti te kuy wax bu ñu sañoon da dañ lay déglu ndax bu ngeen déggee alquran di wax ne fa isaa qara'ta alqurana fasta'iz billahi min asheytaani rajim ak wa isaa quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun loolu li muy tekki mooy wax ju baax bu jógee nangeen ko déglu te cellantu xëy na seen boroom dana leen yërëm def bis nag man bis da koo gën def bis man bis da koo gën ñu ngi nuyu kilifa gu tedd gi nga xam ne mooy yi sëriñ Aliou Kare ñu ngi lay nuyu bu baax di jottali la nuyoo sëriñ Abdul Karim Mbàkke mu sëriñ Fàllu wax dëgg yàlla am na ci loo xam ni bees la ko waxee contexte biñ la koy waxee mooy tax lu mitti mitti ñàkk caa teew daray àddina du ko jar ndax coono rekk lañu yàlla wàccee ci kaw suuf bi may ñëw nag maa ngi ànd ak sëriñ Xaadim muy lépp sëriñ Abdul Karim ànd ak moom bu yàgg a yàgg ba tey jii te li ci gën a doy mooy sa teewaay ci kër sëriñ bi sëriñ Aliou ñu gën laa xam ci saa Touba ñun ñëpp seere nañ ko ki nga fa mujj indi sëriñ bi di ko tuubal soxna bu Njaay la ko sëriñ bi tuddee waajuru maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu ñun ñii ñoo ko seere kon sa bis bi faw ñu teew ci kon ñi ngi nuyuwaat di siyaarewaat ñaari sang yu tedd yi toog muy sëriñ Modou Mbacke ibnu sëriñ Aliou Mbacke ak sëriñ takko ibnu sëriñ Modou Xaban Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadinil Fadil ak seen rakk yi àndal yëpp. am nañu ne addisul xussi yi lii may bëgg a wax moom la am na ñu ne du moom waaye daal wax ju rafet la. wa inda sikri saalihiina tansilu rahma ñu ne dañoo wax ni sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni bu ñu tudd gaañu baax ñi sëñ Galas maa ngi jéggalu waa gox bi rek laay waxal ak waa koñ bi Sa Touba mi jiwut kenn woote bisam tant tant bu mel nii di waaj màggalug Touba te yéen li mu séq ak yéen ngeen yor coow li ci biti yaakaar naa jiwu leen lool nanu déglu Serigne Fallou Diatara nii mu waxtaanoo ci Serigne Saliou ndax ñun waa Touba sëñ Bamba rek la ñu am nanu ko déglu ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba. xam naa ku bëgg sa xol dal day di nga wax def li yàlla wax. ala bi sikrillaahi tatma innul xuluub sunu borom nee na ma dee tudd ci la seeni xol di dale ala bi sikrillaahi tatma innul xuluub ma tolloon rekk ci di wax ni wax nañ ne yonent bi moo wax wala gaañu baax ñi ñoo wax nii gaañu baax ñi buñ leen dee tudd yërmande day wàcc sunu borom boxal boppam ni inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taqaafu wala taxsanu wa absiru biljannati allati kuntum tuuhaduun nahnu awliyaukum fi lxayaati dunya wa fi laaxira walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taddaun nuzulan min xafurin rahim loolu nag bala nga koo mën a am dangay dal sunu borom nee na bu ñu waxee ne man ngeen gëm ne yàlla de mooy sunu borom te ngeen ne ci sax ak ci ak njub malaaka yi dañuy wàcc di leen wax ne bu leen ragal dara bu leen tiit dara bu leen jàq dara bég leen ci aljanna ji ma leen dikk man yàlla maay seen kilifa ci àdduna di seen kilifa ci àllaaxira te li seen bakkan bëgg al ëllëg moom la ko yàllay defal lu ngeen woote ci aljanna yàlla defal leen ko daal loolu ngane la goo xam ne daa jóge ci buur buy jéggale te yërëme nuzulan min xafuurin rahim bu ñu sëriñ saa Tuubaa mi wooyee yàlla dafa sori de sëriñ Moodu mii rek ngeen war a ruus ci toogaayam bi ak sëriñ tàkko mi yàlla dafa sori sëriñ tubaab mi nga xam ni amuñu lu dul moom te bëgguñoo am leneen lu dul moom moo sanc dëkk bi dëkk bi ceddo musu fee dëkk lu bon musu fee am dañ ko daan dégg wax nañ ne sax ku mas a topp ab sàcc ba mu traverse dëkk bi romb ko jàll danga nga naan raw na loolu baat boobu baat bu doy waar la bu yàlla defal sëñ Tuubaa ku fi dugg raw man gis naa sëriñ Abdul Karim Mbàkke mu sëriñ Fallu bu ko ay daayere di siyaar si ak fu ñu mën a jóge bu fekkee waa Touba la ni muy insister ci ak ay teggin du ko insister ci ñële ndax nee na nañuy bàyyi xel ne suuf si Serigne Touba moo ci tëdd man loolu ku ko dul teewlu billaahi wallaahi wa dugg naa ci wetu jumaa ji am fu may dugg bëgg a yeeslu mu mel ni baat dane ma sëñ Touba mi tëdd nag billaahi ma bàyyi ko loolu man dal na ma xam naa ni bëgg nañu rek ma jaare war ma ji feneen na xam ne ngànt sax ku ko am am nga ko waaye nañ xam ne suuf sii ni ñuy wormaalee fee ca Madina ndax ki fa tëdd moom lañu war a wormaalee fii ndax ki tëdd kooku ñun rek ñoo ko am maami Serigne Modou Mbacke mi toog di Cheikh Mouhamadinil Fadil daana daanako wax ki nu am ñun rek ko am sëriñ Fallu ca xam-xam bu bari ba ca mbaax ga ca wilaaye gu bari ga bu demee bay wax loolu xam nga ne kon loolu yàllaa ko waxloo ñun rekk ko am dëkk bi ku ne bëggoon na ko ku ne gis na ko ñu wan la liy tax nga jot ci mënoo koo def nga baax sëriñ tubaa jóge Daaru Salaam tàbbi fii ama bay sasin ba mu fi tabbee ci la am ñu mu dajee laaj leen garab gi nga xam ne moom lay wër ci lañ ko wax ne gis nañ fi ak mbépp goo xam ni rab yi day mel ni bu ñuy xëy dañuy mel ni dañ koy tawaaf rëbb bu ñaan buubu ja moom la sëñ Tuubaa dajal xoolal ma koy yóbbu mu ñëw taxaw moom. moomee ba ko Serigne Touba waxee loo bëgg dane ko may mën a jàmm lu ñu xam ti kon mi ngi Serigne Touba buubu jo ba mu fa jógee dootul mooy waaye nag ànd na ma ak moom de ndeke rab woo jàmm diir ko mu wadd sunu borom subhanahu wa moo la ko téyel alam yaraw ila tayri fawqahum saafatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna ila rahman sunu borom ne ne njanaaw loo gis mu wàcc ko suuf ñu koy jëfandikoo man yàlla maa leen ko ngëbal kon rëbb bi buy rëbb ci loxoom yàlla lay rëbbee kon lim ñaan Serigne Touba mat na ko ci la Serigne Touba di xalwatu bañ ubbil koy palanteer ne ko garab gi ñuy wooyee tuuba ca digg aljanna car bi am na car boo xam ne mu ngi la tiim mooy fii mu tëdd tey foofu la nekk ba mu yàgg mu jël ñetti banti tëbanaan yi bala maa tudd loolu may tudd nag maa ngi nuyu waa Mbusoo ba gépp ndax loolu sëñ Mbàkke sa ci la xewe woon ñanti ñetti banti tëbanaani la jël na sëñ Mbàkke Buso gasal mu gas mu ne ko suulal mu suul mu ne ko boo ëllëgee fii la boo ëllëgee fii la nga am lante feeg tubaab bi dañoo kas fu nooy sëñ Mbàkke Buso la rek ànd du ba nee ndeke fañ ànd du ba nee wala bant tëbanaye ne bañ ne tuxeet bant yee naaw sëñ Mbàkke Buso yuuxu def kii la loo lu mu wax yàlla de kon nag bu ñu nekkee ci weer wi li xam ne ci la tukkee woon jóge Mbàkke Bari Sëriñ Saliou doon na bi genn dem la dina amul lenn lu ci wax rek muy lii comme comme sàmm wajaxal masiri yasa jawfal fara lil wara misal maxaari bi nee na suñu borom maa ngi lay ñaan sama tukki bii doon jawfal fara jawfal fara fi boo ko rayee ndawal bu dagal boo xalaat moom la picc mi doon boo xalaatee xar mu doon ko boo xalaatee béy mu doon ko boo xalaatee nag mu doon ko. yéen dafa mel ni waxtaan wu Sëriñ Tuubaa ngeen naan lawal naa ko. waaye dégg ngeen ni jàngat Sëriñ Tuubaa waaye da ngeen def. loo xalaat rek. loolu lay ñëw nee na tukki bi li ci waaye rek na la safee noonu mooy mooy yow la ko nee na fas yu xoox sax nee nit kuy xoox naan nangu maa topp maa ngi lay ñaan nga jëriñ ko ba misal ma xarit nee na fas mooy fas woo takk mu lànk dem ni muy arrière lànk nee na kii arrière lànk Sëriñ Tuubaa nee na bëgg naa koo kee jaay ñu te loolu am na ñëpp a ngi jëriñ ci moom ak ku ko bañ ak ku bëgg ñëpp. sëriñ bi li dem dañ bàtti bu solo woon ne ko damaa dem Jolof Jolof mu dog ci yóbbu ku ne xam na moo bind ma dogul foosé nii ci mbaaru dóor moo xam ni mbaa mi moom moo ko mbaaral boppam kenn jàpp wu ko booba dëkk bi na màkkaamam dëkk bi weesu ko mbaaram dóor dóor sëñ bi ne ci di bind mag la ko téye. foofu la Serigne Sall nekk nekk biir nee na bi mbaa bi garab yi ñëwee ànd ak gaynde gi di daw gaynde gi di ko da ngay gëstu taxaw jël loxo yi bépp ko ci jël tànk yi bépp ko ci mbàkkum sëriñ bi sëriñ Saliou neen la ca yéeme mooy facture bi tolloon di bind nee na buñ la ko ku dara laal ngiru ko doo ko doo ko si yëngu xëy na yëngu gaynde gi bi ne gëstu taxaw ngay si gaynde gi bi daa fee na bëyam gi ba mu ndax ay xel lañ ak seen bàyyi na ngarab yi muy mbaam àll bi ndax xel la ak seen sëñ bi yërmande da koy feeyal da koy feeyal ci mala yi te kat ñu ko békk tànk yi sëñ bi yër sëñ mu demee ba ne noppalu na sëñ bi da ko da ko xool ci xool sëñ bi sëñ bi da ko mbaam àll yi topp topp loxoom sëriñ bi gaynde yi taxaw rek lan moo téye gaynde yi pour te dem sëriñ Tuubaa nee na nitam nit rek ma ñeme ndax damaa bëgg moom bi gaynde yi taxaw rek sëriñ bi di ko xool bu mu yàgg mu ne ko gaynde yi si ñu xool sëriñ mu ne ko nii kenn koo ko teg sa borom ko jàpp foofu lay waxee wajal xarimana xariman amin wa kun bi hibsihi kafiran dami sama xaram ji di tóogóor bii di Tuuba maa ngi lay ñaan yàlla nga def ko mu tóogóor bu aar te maa ngi lay ñaan nga gàddu man na ko wattu na nga ma warul na nga ko wattu sëriñ bi di xelwatu ba mu yàgg yonent bi feeñ ko ànd ak saxaaba yi sahabatu rasul Abubakar Omar Ousmane Ali yonent bi doon seen kilifa jiit ko mu leen xool ba mu yàgg mu ne yonent bi ñii ci laa bëgg a mu ne ko ñii day bokk ci dañoo tuuroon seen deret te loolu jeex na. mu ne ko ah ci laa bëgg a bokk de am na yenn loo xam ni yanoon nañ leen ko ngir dëkk bi ak bëgg a bokk ci ñii waaye buñ ko woon rek doo ñemee am nañu loo xam ne sax bañ ko yenoo bu ñu leen dimbalu doon yàq sëriñ bi ne yéen mooy yaay bi ni muy waaye lu mu rëy rëy du na garanti sama góob sama jom déglu. ci lañ garanti moom sëriñ bi dana xamal ne ñëwut lu mati ruub buñ ko tegee lu mu at lu de daal di génn moom. moo tax sëriñ bi garanti la ruub yi waaye suñu borom dana yaa wax kat wa maskani salli min al fujaari wa mnun ala ahli bi maani jaari yaa ngi sama dëkk bii ay saay bu ma bu ma dëkk bu ma dëkk saay-saay yaa wax nit waa al mahrusa yaa ne yàlla aaral na la ko aaral naa la ko ko kon kenn doon fekk dina teg benn diir loolu laa waral sëriñ bi nag Jolof waaye bi muy dem Jolof nag moo woo sëñ mu ne ko damaa bëgg a dem Jolof damaa bëgg taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw di siyaas yi ku la fekk Touba yow yaay jëlee bu dëkk ku la bëgg a jox alal na la ko jox wala koo xamante ni bi yàlla dogal na bëgg naa agsi na nga gisoo moom rek ba bu fekkee daa bëgg agsi nga bàyyi ko waaye bu fekkee bëgg naa toog lu mu yor na la ko jox te toog sëñ sëñ Mbacke Bousso wax ci wax bu bon nee bu sëñ Touba demee rek la lépp jëm nee bi sëñ Touba demee ñaari fan ñett nee koo gis ci dëkk waaye bu ko bu ko ko day yéenal rek koo gis dëgg day yéenal waaye waaye nee na waxee moom nag bu ñu ko waaw sa sama waa ji ndax tàgg ko ko sama nijaay sa nijaay bu si mosoo bi sëñ bi ne ko tàggoo tàggoo ko mu ne ko lu tax tàggoo ko mu ne ko damaa bëgg a bàyyi ba ci cëppaandoo ndax dugg naa tudd mu dëkk mu ne ko waaye man de sama waa ji nee na ma ay samay yàq laaj nee na sama jëm la ko joxee ndax moom naawee lañ koy jëmbale si xanaa li ñuy wax jaayal lañ wax ne moom la suñu aadama ngi li jox deret suñu mbàkk bu sal njëkk a joxe deret jox yëpp kenn naawee waaye jaayal ci yoon rek suñu aadama ngi li ko waaye am say xalaat yi sëriñ aadama bi te bàkke kañ sëñ sëñ Moussa bi nag waaw tey ngaa bañ a dem boobu ay doomi soxna ko dee ak i jënd boo àggee danañ defe na jóge sëñ bi ne ko jóg naa ba noppi pour mën ko ànd sëñ bi ne ba ma demee rek ci bis bu njëkk ba laa daal di xam li ma sama yaay wax nee dama daal di gis jógee doomi soxna dafa ko wéy lii ñu jot ko ko loolu doo ko leen tax jumbo bi nag moo waral bis bi ñu jëm ci dimanche xaraj yow ma sabti raame ma safar di xidmatil muxtaar yi sande safar loolu daa bëri toog waaye lu simple ñeenti fane safar laa génn loolu xuróoj boobu xuróoju niyya génn bu yéene waaye génn génn dëggantaan nag nga xam ci jëmm ak lépp ko fan yu juróom-ñett boo demee ci jasaawu sàkko moo ko bindal boppam danay xarajtu yow ma sabti rabia safar li xidmati muxtaari fii sahri min addaari lati banaytuhaa fii jolof fii ardi jolof li taallumi wa taalim moo safar boo ngi fi ñu génnoon xaw tur mu dëpp benn safar boobu àllarba la dem woon àllarba alxamis àjjuma samedi dimanche altine talaata altine talaata àllarba alxamis àjjuma samedi dimanche altine talaata àllarba alxamis àjjuma samedi di fukk ak juróom-ñett te li ci gën a doy waar lépp sant leen bi mu yéenee génn ak bi mu génn lépp sant leen loolu sax am moo tax mun a xaaraj bu yow ma sabti sa dix-huit di dix août mille huit cent quatre vingt la Sëriñ Tuubaa génn Mbàkke Baay tubaab bi ne ko bi ne ko da ngay war a da ngaa baax waaye yow danaa la sant la keneen moo wax loolu sëriñ bi sëriñ bi ne boo ma njëkkoon a gis boo ma njëkkoon a gis dugg ci man rek nga yem wala gis waaye ma ci man rek la keneen ku la kelerku moomu mooy Gorob Louis Mouté moo yoroon doomi Louis Mouté Louis Mouté mooy gouverneuru Ndar xam nga nit boo yoree comme boo yoree commandement yor doomam mën na laa sërxal ci kàmb moo tax la keler bi mu jël bi mu jël see bi jeewal dajeeg sëriñ bi jeewal am ay instruction ne sëñ bi mi ngi war a fanaan ndar sëriñ bi am instruction ci kaw ne ko yow ne ko jeewal nga faral trois caameen muy dëkk caameen yooyu sunu borom ne ko yow fii ngay fanaan le clerc ki am ndigalul fanaani ndar ak sëñ bi ñaari ndigal daje ban la ci sëriñ Tuubaa di jëfandikoo le clerc ki ne ko lii lu mu doon mu ne ko ah fii lay fanaan kat jot naa ndigal ne fii lay fanaan bu ndigalul lan mu ne ko ah loolu doo ko mën a xam waaye man fi ma jotee ndigal man xam naa ko mu ne ko Louis Mbite moo wax ne da laa convoqué directement nga fekk ko kii mu ne ko loolu du ma ci dellu ba wax naa la ko ba noppi tey bi coow li bëree maam Cheikh Ibrahima dafa taw tey dóor ko coup de boule mu siggi même même Leclerc dóor na benn coup ci kaw waaye bi mu dóoree benn coup maam Cheikh Fall daa mel ni taaluñu dara ne ko bu ne leen day fanaan rek day fanaan bi coow li bare bi coow li bare li li bare xam nga waxoon fii waaye ndeke boobu moom mu xam nga sëñ bi dafa teel ci diine. bi muy wax naan ci ahlu badrin laa bëgg a bokk. te badrin na tef xay soom génn jibril génn waaye yàlla dogal na waa armée bi kenn gisu ci ahlu badrin capitaine bi rek ko gis la keneen. Leclerc arrière mel ni kuy daw quartier gi ne ko waaw yow looy daw parce que 150 tirailleurs la àndal ñoo xam duñ mooy téeméeri nit téeméeri soldat ak juróom fukk yoo xam ne kenn du ci mooy bañ demee ba coow bëri mu ne leen xam ngeen lu xew kii bayoo ñu bayoo boo ñu bàyyi ko mu fanaan ndax ñii ma gis seen làmmiñ ñu mel luñ xar ñu yor jaas yoo xam yaatuwaay bi xaw fu mu tàmbali ak fu mu yem man duma leen sóoru man fi ne la keleer ba fii may waxee yow nii bu fekkoon sëñ bi ahlu lu feeñu wuñ ko feeñu quartier gépp duñ mën a gëm li keleer ko wax waaye la keleer négocier ak sëriñ bi ba fajar mooy de loolu rek bu sëñ Tuubaa yow man mu doy 150 tirailleurs